bu ngeen gisee jataay bi euh, mu wuuteeg jataay bi nga xam ni moom lañ njëkkoon a def ngeen xam ni euh, ndigal li nga xam ni moom lañu sëriñ bi joxoon ci ngir ñu liggéey liggéeyu tool yi euh, bu ngeen xoolee jataay bi xam ne liggéey bi suñ borom defal nañu ci tawféq ba liggéey bi mat na ñu ànd ak jëwrin yi Euh, kàddu yi ñoom ñoo ko yëkkati waaye xam naa dinañ ko yëkkati ci kanam euh, ñi ngi feggoog Cheikh Mouhamadul Bachir fay ci sunu ndeyjoor di boroom xam-xam bu mag yoru kàddu sëriñ bi xam naa allahu ci kanam dana yeewee mbooloo mi jottali kàddu sëriñ bi ñaar ñi ci sama càmmoñ di sëñ Abou Sarr ak sëñ euh, Maao Ndiaye ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite tool yi. waaye eh, suñu jëwriñ ju mag ji nga xam ni képp koo xam ni taalibeeb sëriñ bi nga di sëñ mot jaxate di jàmbaar joo xam ni daa àndoon ak ay waajuram moom it moom ngeen di gis noonu ci suñu wet ci suñu ndeyjoor ak sëriñ Masamba Béer mi nga xam ni njàmbaaram ci liggéeyub sëriñ bi ku nekk xam na ko moom mooy mu ngeen seen noonu sama day nga xam ni moom mboolem tool yi moom moo koy jiite euh, sëñ Manel Fall moom it ñëpp ràññeeku ci kër Cheikh Mouhamadul Mourtada di jàmbaar moom itam moom ngeen di gis noonu ci sama ndeyjoor kon jëwriñ yi ñoom la ñu toogal ngir ñu euh, dimbaliwaat mbooloo mi ci jàjji leen ci euh, liggéeyub sëñ Tuubaa njariñ li nga xam ne am na ko ci kanam tuuti su ko defee liggéey bi ni nu ko sëriñ bi digalee woon yàlla defal nañu ci tawféq ndax ku nekk xam na ne ñi ngi doon waajal xelkom ci sunu kanam sëriñ bi waxoon ni nag nañ woo ñi nga xam ne ñoo féetewoo sow eh, ci eh, digdigal digal bii nga xam ne diggante sowoog Cees ak Mbuur ak Ndakaaru nga xam ne danañ jege tool bi lépp rek ngir ci yërmandeem rek ak eh, liggéey yi nga xam ne xañ na toggoon nañ ko te taalibe yi amuñ ci benn coono ndax bëgg gi ak pas-pas beeg pësteef bi tax na tayyiwuñ ci dara tayyiwuñ ci dara euh, euh, suñ ko mënoon a wax dañuy wax ni ñoom euh, lu saxaaba ya waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko boo demoon ba barkul rimaak sax danañ la fa topp kon mën na noo wax ni Cheikh Mouhamadou Mourtada fu mu ñu woo danañ ko wuyu lum nu sant danañ ko def te it danañ ko defee anam bi nga xam ni moom rekk noonu rek la ko sëriñ bi bëggee kon liggéey bi mat na ci ndimbalul yàlla ak tawféexam ak barkeb sëriñ bi taalibe yi ñëw nañu indi nañ seen ñaq indi nañ seen doole indi nañ seen pas-pas indi nañ seen pastéef loolu nag ñu ciy santaat sëriñ Tuubaa bu baax a baax a baax a baax a baax tey ñaan yàgg koo teewe ñu yàgg ko ñu yàgg koo jëf te yàgg koo jëfal sëriñ bi te jëf ji seytaane bañ cee am aw yoon teñ koy defee ni ko sëriñ bi bëggee te ci laq ay ndam ak ay ngërëm yu yaatoo yaatoo yaato yaatoo yaatoo Euh, kàddu yi day ndigal waaye euh, sunu jëwri ñii nga xam ne ñu moo ñooy ci sunu wet ñoom ñoo ko waroon a yëkkati te danañ ko yëkkati itam ci kanam jotal leen cantuk sëriñ bi ñaaxaat leen ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi ndax wax dëgg yàlla niñ leen ko waxee euh, diggante bi jàpp gi gàtt na waaye boo ñëwee ci liggéey bi da ngay gis ni feeñut feeñut feeñut ci pas-pas feeñut ci kàttan feeñut ci doole feeñut ci dara loolu nag ni ma ko waxee léegi rek taalibe yi amul lu dul sëñ tubaa sëñ tubaa jaral na leen lu ne fépp fu mu leen woo nañ ko tàmbalee woon ci liggéeyu njëkk ya ca gasum raay baag tabaxum jumaa jaag ak la ak ya ca topp ak yee ca topp liggéey yooyu pas-pas yooyu rek la murid yi amaat mooy pas-pas yooyu nga xam ni moom la saxaaba yi àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa rek ba xeex lislaam ba mu taxaw yoon sëñ tubaa yi itam noonu jëf jël ñaq jariñu rek ndax li yonente bi sallallahu alayhi wa waxoon euh, ni ab aw yaram mu liggéey ci toolub yàlla ba ñaq ca wala mu puseer ca ñaq woowu yaram woowu suñ borom araamal na ko sawara loolu nag murid yi moom lan xam ba tax na liggéey Sëñ Tuubaa moom amuñu ci euh, frontière amuñu ci euh, lenn luy loo xam ne luy luy luy luy luy luy xebat la ci seeni xol wala ci seeni xel loolu nag yàlla nañ ci Sëriñ tubaa defal ndimbal loo xam ne dana kawe suñ njort ba lépp loo xam ne woote na ko ñu liggéey ko liggéey ni ko sëriñ bi bëggee te tem kawe suñ jort kon ñi ngi wàcc kàddu gi di leen santaat bu baax yéen waa Tawfekh Production ni ko waxee woon léegi eh, ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne yéen a koy taxawale sëriñ bi ngir wane ab liggéeyam te mooy liggéey bi nga xam ni moom la jëlee ci maamam jëlee ko ci waajuram wu tedd wa te mooy liggéey bi yàlla bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi def ab daawa ci woote boo xam ni ñu ngi ko eh, dëgmal di le 26 ci weer wii ñu nekk vingt 26 novembre fële ci xel xelkom te mooy toolub yàlla bi ba tey rek euh, ndax xel euh, xelkom moom day beneen mbir boo xam ni euh, sëñ Saliou man toog naa ba tey mu wax ni barab la boo xam ni leer yaa ngi fiy wàcc barab la boo xam ni képp koo xam ni mel nga na nga war a mel andi fa la nga fa war a indi ci pas-pas ak yéene ju sell ak passif nee na leer na ko ne leer yaa ngi cee wàcc te leer yooyu bu wàccee dana rogalaat muy barab boo xam ni euh, barab bu mat a liggéeyal yàlla la barab bu mat a dem la kon ñi ngi ciy woo mbokki taalibe yëpp di le 26 novembre bii ñu nekk mu mel ni liggéey bii rek ndax moom lañ njëkkoon a jàpp sax ci liggéey bi waaye ñun moom amuñu euh, frontière wala amuñu taswif mooy nii niigal ci liggéey bi Sëñ Tuubaa tey jii bu ñu sëñ bi ne woon bu ngeen xëyee dem xel koom duñ delluwaat kër fii lañuy ñuy bàyyi ko dem xel kom liggéey ko kon nag liggéey boobu ñu ngi ciy woo bokki taalibe yëpp fépp fu waay mën a ne ñu ngi lay woo boo mënee ñëw boo mënta ñëwit euh, sa sa jëf ñëw ndax jëf la joo xam ne képp ku ci tab bi saw ñaq bu soob yàlla suñ borom dana ko ful euh, kaweel ko lool ba mu àgg ca ñaqi gaa yu baax ya kon nag ñu ngi ciy woo bokki taalibe yëpp di leen euh, woo ci ndigalu sëriñ bi ci ndigalu jëwriñ yi nga xam ni ñoo nii ci sunu wet ñuy wax ci seen kàddu euh, di wàccewaat kàddu gi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu baax di ko ñaanal di ko xamal ni ko benn bëgg-bëgg képp lan am ñun ñëpp te mooy mu yàgg fi te loolu képp mooy sunu bëgg-bëgg ndax bu fi yàggee te wér ñun liñ bëgg lépp dinañ ko am te liñ bëgg mooy làq ngërëmal sëñ Tuubaa ca kàddu gi kàddu cant képp la ndax war na sant yàlla ndax xam nga ni fii ñu taxaw nii ci kër Balla Lo am na sunu beneen yun sunu yeneen mbokki doomu aadama yu taxaw feneen taayoo fa neneen ñun ñu nekk fii di liggéeyal Serigne Touba loolu ak cant la ndax tool yi day wax nanu ne sëriñ Saliou ci dundam la ko woon bi ñu demee ba ay jëmmi jamono mu yëkkati ko teg ko ci loxol sëñ Mourtala mu sëñ Saliou kon tool yi Serigne Touba la ndax sëñ Saliou day mës a dara dara lu mooy Serigne Touba. kon tool yi tool yi Serigne tubaa la kon bu ñu yàlla defalee tawféex defal ñu ndimbal ñu fekkee ren ba mën fee ñëw jëfe ndigalu Serigne mu Serigne Saliou mu jëm ci Serigne Touba war na noo sant yàlla war na noo gërëm Serigne Touba kon sëñ Massamba Béer nee na sant na képp koo xamante yaa ngi woon ci biir tool bi mu la doon jox ndigal nga koy jëfe mu naan la bàyyil ngay bàyyi nee na sant na la gërëm na la ci turu sëñ Mourtala mu Serigne saaliw nee na li ngeen di sàkku li ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla na ngeen ci dajeeg tawféexu sëriñ bi nee na daal cant mënut a weesu sant amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem waaye nee na nag jëf yooyu yëpp nag dëxëñaan na ko def ko addi sëriñ Mourtalla mu sëriñ ngir mu yàgg fi te wér ca daraje sëriñ Touba. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax di leen nuyu si tëri sëriñ Mourtalla moom sëriñ Saliou yàlla na fi yàgg loolu te wér ginnaaw nuyoo bi it dañuy yëkkati kàddu yoo xam ne dañuy nuyu nuyu suñu jëwriñ yi nga xam ni ñoo ñëw teew si liggéey bi ñu jiiteel si baay Modou jaxate ak sëñ Massamba Béer ak sëñ Manal Fall ak Baye Serigne Diouf ñooñu dañ leen di sant te di leen gërëm ci turu kuréel bi mooy kuréelu daayira Nahju national bi yëpp. bi ñëwee ci li nga xam ne nii moom mooy ndigal li nga xam ne moo ñu fi tax a daje tey te sëriñ bi taamu woon si ne daayira yi nga xamante ni ñoo féete ci sowu bi mën a ñoo teew Kër Balla ngir jëfe ndigal loolee loolee daal di mat sëkk ñuy rafetlu. teewaayu jëwriñ yëpp ak seen mbooloo lu ñàkk nag ñu tudd turu jëwriñ yooyee nga xam ni sëriñ bi jox na leen ndigal te ñu teew fi ñu diital si sant googee waa Kër Balla Lo ñoom ñi nga xam ne nii ñoom lañ fekk si tool bi te seen jëwriñ ji Maawo Njaay daal si teg waa Mbuur ak gox yi wër Mbuur yëpp te ñu teew ci liggéey bi te sëñ Abou Sarr jiite leen di si tegit daayira waa Thiès ñoom ñëpp teew nañ ànd ak waa Sëriñ Diouf di ci tegit daayira Kër Massar jiital si Baye Baye nduur moom mi nga xam ne moo jiite Kër Massar di si tegit daayira golf bi nga xamee ne ni Abdou Jaxate moo ko jiitee teew na fi ak mbooloom aliw Jaxate di ci tegaat it euh, waa kër waa daayira dakaar si jiital Baye Cheikh Guèye di ci teg daayira HLM si jiitu seex jóob di si tegaat daayira Géejawaay si turu Mamadou Diop loole mooy daayira yi nga xamante ni sëriñ joxoon na leen ndigal te ñu teew fi kon dafa mel ni seen teewaay mat na sëkk la taxaw na jóg daayira béer la leen taxawoon a jóg mooy ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxe ne ko ñoom matal nañ ko ba dinañ ko seereel sëriñ bi xamal ne ko liggéey bi mat na kon sëriñ bi amee na ko nu mu ko bëggee ñu ngi sant bu baax ñi fi teew ñëpp te di soñ sama bopp di soññaan mbokk taaliba yëpp ñu xam ne liggéeyu sëñ Tuubaa lañ nekk di ci liggéey di xencu ndigalu sëriñ bi waaye yàlla defal ñu tawféex ba sëriñ bi xentu loo ñu ndigal loo xamee ni ci génn sunu ñàq la nekk ndax sëñ Moutala moom barab bii dafa bokk ci barab yeneen ak yeneen yoo xam ne nii samp donc lu mel ni xel koom ak lu mel ni ndal ak lu mel ni Daara euh, kii euh, Ngaabu kon nañ xam ni sëriñ bi ñu àndal daf ñëw fas yéenee liggéeyloo kon nañ daasaat suñu pasteef nammaat suñuy xol lépp jébal ko sëriñ bi moom xam na fi mu ñu jëmee. bu ñu amee ni nga xamee ni ndigal lii nga xam ni moom la ñuy jox bu ñu ko defee ni mu ko bëggee dinañ amee suñuy aajo ak suñuy yitte suñu lépp nu nuñ ko bëggee kon cant googu mun ta ñàkk ci ndigal lii ñu ñu jox ñun ñëpp ñu teew te jëfe ko nu mu gën a rafete ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di sant bu baax di jox baay Modou ak euh, Basirou Faye mi nga xamante ni moo war a ti kaddu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla sëñ Moutalla moom Serigne Saliou yàgg fi loolu te moom benn kaddu rek lay doon te ñi jiitu li ñuy wax li ñuy wax rek mooy li jar te wax nañ ko xanaa li ma ci li ma ci li ma ciy leeral rek mooy mooy ndigalul sëriñ bi ni ñu ko jotee ak ni ko jëfee rek li ma ciy leeral mooy ndigalul sëriñ bi ni ñu ko jotee ak ni ko jëfee rek ndax bi nga xam ne mbir mi dafa mel ni ba xaw a të waa Kër Ball ak waa Mbour Abou Sarr dafa woo sëriñ bi yëgal kooku sëriñ bi woolu ma ma ñëw mu ni ma ah, waa Mbour li mel ne tool ba dana xaw a jaaxal dama bëggoon nga wax maam ñi féete sow comme nii ñu ko limee rek ñu feer sow ñu teew fa seet bis fa mën a teewi man ko ah dimanche rek kon nañu fa teewi dimanche mun ma kon baax na fi may wax ak sëriñ bi Abou Sall woote waat ci kanam sëriñ bi man ko maa ngi wax ak sëriñ bi ci tool yi ba jox la ma ndigal ni naa wax mbooloo mi ñu tew fa kon noo ko sëriñ bi waxe woon ma wax leen ko noonu leen ko jëfe lool amut leneen lu ma ciy wax ndax liñ ci war wax yëpp wax nañ ko loolu rek laa ci amoon wax jërë ngeen jëf. taalibe yi nee na mu ngi nuyu mboolem mbokki taalibe yi fi teew yëpp. kenn ku ñu ci turam ak santam. nee na kenn ku ci nekk ci turam ak santam. di jiital jëwriñ Baye Modou Diakhaté. nee na di jiital ci nuyoo bi jëwriñ Baye du Diakhaté. di ci teg euh, sëñ Abou Sarr. nee na di ci teg sëriñ Abou Sarr. ak sëñ Mawo Ndiaye. nee na ak sëriñ Mawo Ndiaye. ak sëñ Massamba Ndiaye. nee na ak Massam sëñ Massamba Ndiaye béer. loolu na li tax mu tudd leen mooy. nee na loolu li tax mu tudd leen mooy. ñooy bunt yi. nee na ñooy bunt yi. Euh, bu ñu leen tuddee rek. nee na bu ñu leen tuddee rek. dinañ yóbbaale ñi ci des. nee na dinañ yóbbaale ñi ci des. Euh, kaddu gi ñu yëkkati nag. nee na kaddu gi ñuy yëkkati nag. kaddu sëriñ bi la. nee na kaddu sëriñ bi la. ndax daf ñu koo jox ndigal. nee na ndax sëriñ bi da ko jox ndigal. ci laaya biirante. nee na ci laaye biirante. ak taalibe yi. ak taalibe yi. fu ñu mën a nekk rek. fu ñu mën a nekk rek. looloo tax. nee na looloo tax. ñu sañ ko. nee na ñu sañ ko. waaye kon dana diis. waaye kon dana diis. ah su loolu weesoo. nee na bu loolu weesoo. Euh, ñu njëkk a wax ci liggéey bi ñoo doon def. nee na ñu njëkk a wax ci liggéey bi ñu doon def. liggéey bi la ñuy tuddee xidma. nee na liggéey bii ñu doon def moom lañuy ñuy tuddee xidma. liggéeyu yàlla la. nee na liggéeyu yàlla la. boo xam ne yàlla da koo digle ci biir alxuraan. nee na nga xam ne sunu borom da koo digle ci biir alxuraan. yonente bi daan ko defloo saaba yi. nee na yonente bi daan ko daa ko defloo saaba yi. ñu dem ba jamono. nee na ñu dem ba jamono. mu ràpp. mu rab amatut amatul bi sëñ Touba ñëwee nee na nag bi sëriñ Touba dikkee fekk nit ñi jàng di jàngale nee na fekk nit ñi di jàng di jàngale ba yàgg mu ne nee na ba yàgg mu ni yàlla sunu borom moo ne ko. nee na yàlla sunu boroom ni ko. yow de làqatukaay nga. nee na yow làqatukaay nga. te rawukaay nga tam. te it rawukaay nga. ci loolu. nee na ci loolu nag. la sos yoonu murit. la sos yoonu murit. mu boole koog ne yonent bi dane ko. mu boole koog ni ko yonent bi dani ko. na nga yar nit ñi. nanga nga yar nit ñi. ci yitte. ci yitte. te bañ leen a yar. te bañ leen a yar. ci njàng kese. ci njàng kese. ndax nit dana jàng. nee na ndax nit dana jàng. te ay cëram du nangu. te ay cëram du nangu. nit mën naa jàng. nit mën naa jàng. xolam nangu. waaye bu amee yitte. nee na bu amee yitte. cër yi dana nangu. cër yi dana nangu. xol bi dana nangu. xol bi dana nangu. loolu la sëñ Touba dolli. nee na loolu la sëriñ Touba dolli. tam rappoon. tamu rappoon. mu yeesalaat ko. mu yeesalaat ko. ci biir lislaam. ci biir lislaam. ah sëñ Touba noonu mu ko dundalee. nee na nag sëriñ Touba noonu mu ko dundalee. xam nga sëriñ Touba njabootam kenn ku ci ne. nee na xam nga sëriñ Touba njabootam kenn ku ci nekk. dalaa xallal dalaa xàllal. loo xam ne daa mel ni yow rek yaa ko jagoo. loo xam ne daa mel ni yow rek yaa ko jagoo. bokk na ci loolu. nee na bokk na ci loolu. sëriñ Saliou Mbacke ku ko xam. nee na sëriñ Saliou Mbacke képp ku ko xam. ci ci samp ay daara. ci samp ay daara. ak tarbiya nit ñi. ak tarbiya nit ñi. di leen liggéeyloo. di leen liggéeyloo. di leen yeggale ci suñu borom. di leen yeggale ci yàlla. loolu la ko sëriñ Touba cëral ci boppam loolu la ko sëriñ Touba cërale moom nag nee na moom nag sëriñ Mourtala mii sëriñ Mourtala mi daa donn lool yi daa donn lool ci moom ci moom moo tax nee na moo tax wutut dara wutut dara bëggul dara bëggul dara fa sëñ to sëñ Saaliw newoon rek nee na fa sëriñ Saaliw rek nekkoon foofu la ne foofu rek la sëñ Murtala nekk ñi fi jiitu wax nañ ko nee na mbooleem ñi fi jiitu wax nañ ko te bëgg na it nee na te bëgg na it ñu koy tuddoo ñu koy tuddoo ànd ak moom ànd ak moom ñu xam loolu nee na ñu xam loolu ñu xam ne foofu la ne nee na ñu xam ne sëñ Murtala fii rek la nekk li ko yitteel nee na li ko yitteel mooy lislaam mooy lislaam ni ko turandoom wa daan waxee ni ko turandoom wa daan waxee loo ko mos a wax rek loo ko mos a wax mu ne mooy lislaam mu lislaam boo ñëwoon wax kuréel nee na boo ñëwoon wax kuréel ci biir diine ci biir diine day wëlbati loolu tey wëlbati loolu mooy lislaam rek ñu la mooy lislaam rek boo waxee xidma boo waxee xidma mu ne la mooy lislaam mun la mooy lislaam mu mel ni mu mel ni moom mii sëñ Mourtala moom mii sëñ Mourtala jikko yooyu jikko yooyu mi ngi ci moom moo ngi ci moom kon kon mbooloo mépp war nañ koo xam nee na kon mbooloo mépp war nañ koo xam ndax àdduna nee na ndax àdduna dafa bëri riir fi mu ne dafa bëri am riir wax eh, xam di wax ñi xamul di wax ñi waaye moom bëgg na waaye moom bëgg na koy tuddoo ñi koy tuddoo ci ay soppe ci ay soppe ak i taalibe ak taalibe ñoom ñëpp xam ne ñoom ñëpp xam ni ci diine la ne ci diine rek la nekk ci taalibe la ne ci taalibe la ne ci liggéeyal Serigne Touba la ne ci liggéeyal Serigne Touba la ne moom képp koy moo tax nee na moo tax mu fonk xam-xam mu fonk xam-xam ak lii ñu doon def léegi ak lii ñu doon def léegi ndax lii ñu doon def léegi nii mooy liggéey bi di ñaq ngir ngir yàlla ñaq ngir yàlla yàlla dafa junj ci alxuraan ne nee na dafa junj ci alxuraan ne képp ku liggéey liggéey coobarewu nee na képp ku liggéey liggéeyu coobarewu da nga da nga da nga am fay nee na da nga amuk fay te nee na sax moo gën nee na te noona sax moo gën mu waxaat ne mu waxaat ne képp koo xam ne da ngaa bàyyi li nga gën a bëgg nee na képp koo xam ne da ngaa bàyyi la nga gën a bëgg jox ko ñeneen jox ko ñeneen di nga fay ko dinga nga fay ko te loolu jagle la nee na te loolu jagle la te loolu mi ngi jógee ci saxaabatul kiram saaba yi àndoon ak yonente bi mu ngi jógee ci saxaaba yonent bi dañ daan def dañ daan def loo yëkkati rek loo yëkkati rek jox nit jox nit mu ne joxal ki ci des mu ne joxal ki ci des boo joxee kooka boo joxee kooka mu ne joxal ki ci des mu ne joxal ki ci des loola di wër nee na loolu di wër ba ñëw ku ci ci ki jiitu woon ba ñëwaat ci ki ko a joxe eh, borom xam-xam yi bi ñuy firi wax jooju bi ko yàlla yaxalee ci alxuraan nee na nag borom xam-xam yi bi ñuy firi wax jooju bi ko yàlla waxee ci alxuraan dañ ne ñaqu yaram nee na dañ ne ñaqu yaram ci la bokk ci la bokk ndax nit ndax nit ku bëgg yaramam la ku bëgg yaramam la bëgg nooflaay la ku bëgg nooflaay la waaye bu koy sonnal waaye bu koy sonnal di tuur aw ñax di tuur aw ñax di jox ñeneen ñuy dundee di jox ñeneen ñuy dundee loola nee na loola day bokk ci wax jooja nee na day bokk ci wax jooja wax jooju nee na wax jooju feeñ na fii ci liggéey bi feeñ na fii ci liggéey bi te loolu nee na te loolu kenn mënu koo defal boppam kenn mënu koo defal boppam lu dul lu dul ku yegg ci suñu borom ku yegg ci suñu borom yàlla may ko loolu ci maqaama yàlla may ko loolu ci maqaama ak i daraja ak i mën laa yéege mu mën laa yéege dugal la foofa ba dugal la foofa ndax loola kat ndax loola kat kenn mënu koo may sa bopp nee na kenn mënu koo may sa bopp moo tax ñu war a sant yàlla nee na moo tax ñu war a sant yàlla bi ñu àndeek Serigne Mourtala nee na bi ñu àndeek Serigne Mourtala mu doon ndono yu rëy yooyu ci ay ci Serigne Touba nee na mu doon ndono yu rëy yooyu ci Serigne Touba doon ko ci Serigne Saliou doon ko ci Serigne Saliou wutal ñu ëtt boo xam ne wutal ñu ëtt boo xam ne mën nañ faa tuur suñu ñaq mën nañ faa tuur suñu ñaq di fa joxe suñu alal di fa joxe suñu alal di fa liggéeyal suñu moroomu nit nee na di fa liggéeyal suñu moroomu nit di ko joxe di ko joxe te duñ ci doon dara te duñ ci doon dara loolu ku la ko defal nee na loolu ku la ko defal defal na la lu rëy defal na valeur rëy te lii ñu doon def nee na te lii ñu doon def jaamu yàlla la jaamu yàlla la te yàlla dafa wax ne nee na te yàlla daa wax ne nit moom nay jaamu rek nit moom nay jaamu rek ba faatu dikkal ko ba faatu dikkal ko loolu nag loolu nag lii ci la bokk lii ci la bokk kenn mënu ko cee génne kenn mënu ko e génne ñu ngi sant bu baax nee na ñu ngi sant bu baax di gërëm di gërëm sëñ bi nag day wax ne nee na sëriñ bi day wax ni fu mbooloo yi tase fu mbooloo yi tase nañ leen soññ ci daayira yi nañ leen soññ ci daayira yi buñ delloo buñ delloo ñu farataal xam-xam ñu farataal xam-xam te tàmbalee ko te tàmbalee ko ci téere téere sëñ Tuubaa yi ndax day boole xam-xam ndax day boole xam-xam akuk taalube akuk taalube ndax boo gisee jamono yii li xew ndax boo gisee jamono yii li xew ak wax ji ni mu bëree ak wax ji ni mu bëree nga xam ne ñu bari ñuy wax nee na nga xam ni ñu bari di wax xamuñu xamuñu waaye waxukaay waaye waxukaay daa yomb daa yomb kon farata la nee na kon farata la ci ku jiite mbooloo ci ku jiite mbooloo mu yar leen mu yar leen jàngal leen jàngal leen ba bu ëllëgee ba bu ëllëgee pakk yooyu yëpp pakk pakk yooyu yëpp teggi ko duñ ci dugg ñu teggi ko duñ ci dugg loolu warteefam la te da koy yëg moom nee na loolu warteefam la te moom da koy yëg looloo tax mu mu sanc ngaabu nee na nag loolu moo tax sëriñ bi sanc ngaabu ndax dane nit ñi ci tool yi ci ci àll bi ci xel koom ak njàppandal fu ñu mën ne nee na mbooleem nit ñi nekk xel koom ak njàppandal ak fépp fu ñu mën a ne yar bi nañ ci boole jàngal leen adduna nee na yar bi nañ ci boole jàngal leen addina ginnaaw bañ mokkalee alxuraan nee na ginnaaw ban mokkalee alxuraan ñu indi leen ñu andi leen ngaabu defal leen ay formation yu bees defal leen ay formation yu bees lañ jàngoon ci alxuraan nee na jàngoon ci alquran ñu téye ko ba du rëcc ñu téye ko ba du rëcc ñu dolli ci xam-xam ban gën cee xóot bu baax ñu jàngal leen tubaab ñu jàngal leen tubaab yi mathématiques yi jàngal leen histoire ba nga xam ne fu ñu dem nee na ba nga xam ne fu ñu dem danañ jekku civilisation foofa nee na danañ jekku civilisation foofa xam ne ñoom fu wóor lañ newoon xam ne ñoom fu wóor lañ nekkoon ndax dane adduna bi nee na ndax adduna bi moo toll foofu moo toll foofu loolu lim lay wan mooy nee na loolu lim lay wan mooy sëñ Touba tànki kanam rek la am liggéeyal sëriñ Touba tànki kanam rek la am ndax la fi newoon nee na ndax la fi newoon soppiwu ci dara soppiwu ci ko téye lépp mu ngi ko téye lu yees la waaye lii lu yees la loo xam ne moo ko ci boole xam ne moo ko ci boole kon kon na ko mbooloo mépp xam nee na kon mbooloo mépp nañu ko xam eh, beneen ndénkaan bi mooy nee na beneen ndénkaan bi mooy nee na nan dongo yi xam ne nee na nan dongo yi xam ne taalibe yi man ak ñëpp taalibe yi man ak ñëpp Euh, liggéey bi day doog a tàmbali rek liggéey bi day doog a tàmbali rek ndax moom fi mu fi mu xool bëtam bëgg faa yegg nee na ndax moom fi mu xool bëtam bëgg faa yegg lu baree baree koy def ci jamono ci temps nee na lu baree baree koy def ci jamono ak ci temps ak ci xaalis ak ci xaalis ak ak yéene ak yéene ju sell ju sell ndax képp ku gaaw a yokkat nee na ndax képp ku gaaw a yokkat doo mën a ànd ak moom doo mën a ànd ak moom ndax lim sumb bari na ndax lim sumb bari na fi mu bëgg dem sori na fi mu bëgg dem sori na xam na ne te xam na ne foofu kese kese kese foofu kese kese kese moo mën a muccal doomu aadama yi mu mën mu muccal doomu aadama yi kon na ñëpp fagaru nee kon na ñëpp fagaru xam ne yii ñuy def xam ne yii ñuy def ak li ñu sumb lu tuuti la lu ak ne lii it xam ne lii xeebuñu ko xeebuñu ko ndax moom fu mu toll ndax moom fu mu toll buy wax ak yow buy wax ak yow day xalaat ndongo yi day xalaat ndongo yi waaw fu ñoom ginnaaw dañoo jébbalu àdduna ak alaxira ginnaaw ñoom dañoo jébbalu àdduna ak alaxira àdduna nañ fi tàmbalee àdduna nañ fi tàmbalee lu ñu fi man rek lu ñu fi man rek nañ leen la loolu nag lu rëy la te loolu foofu loolu lay loolu lay wax moom nee na moom loolu rek lay wax kon nañ gën a góorgóorlu nee na kon nag nañ gën a góorgóorlu te xam ne eh, liggéeyal yàlla te xam ne liggéeyal yàlla sëñ Touba moom moo ko fàggu sëñ Touba moo ko fàggu wax na ne ñi nga xam ne dañ may liggéeyal nee na wax na ne ñi nga xam ne dañ may liggéeyal am am nañ ay këri àjjana am nañ ay këri àjjana eh, ñi nga xam ne su ma wootee ñu wuyu ñi nga xam ne bu ma wootee ñu wuyu texe nañ texe nañu duñ am njàqare àdduna duñ am njàqare àdduna duñ ko am alaaxira ko am alaaxira ndax sëriñ Saaliw ndax sëriñ Saaliw Mbàkke eh, sama waajur wu jigéen nettali na ma ne nee na waajuram wu jigéen nettali ko na seeti nee na mas na koo seeti kër ga nag booba dara mi ngi set wecc dara taxul nee na nag kër ga booba ma nga set wicc dara néew fa waaw mu jékki-jékki mu jékki-jékki leen jog leen moom ñam fa newaloon ngeen for fii lu ngeen fi gis lu mel ni ay ngooñ ak ay këyit ngeen for ko nee na Serigne wax leen ni leen jog leen ngeen xool fii lu fi ne ci ay ngooñ ak taq ngeen for ko ñu xool xool daanaka luñ mën a for newu fa nee na ñu xool xool daanaka luñ mën a for nekku fa waaye boo jàngatee loolu waaye nee na boo jàngatee loolu da leen bëgg a yënguloo da leen a bëgg a leen dimbali bëgg dimbali ngir yàlla ngir yàlla ndax fi mu yegg ndax mu yegg xam na ne xam na ni ku ko yëngul ku ko yëngul yàlla faj sa aajo faj sa aajo loolu nag nee na loolu nag lu rëy la lu rëy la ah, sama waajur weneen nettali na ma ne ma nee na waajuram weneen nettali na ko mës nañoo liggéeyal sëriñ bi ba ba ñuy ba ñuy yeewee nii nee na mës nañoo liggéeyal sëriñ bi ba waxtu yeewee wu mel nii jot sëñ bi ne leen kenn ku ci ne kenn ku ci nekk li mu yéene li mu yéene ak bëgg ko ak bëgg ko na ma ko wax na ko ko wax kenn ku ne wax kenn ku ne wax mu ne leen mu ne ñoom ñëpp mu ne yéen ñëpp yàlla faj na seen aajo yàlla faj na seen aajo ci liggéey boobu nee ci liggéey boobu ne leen ne leen ñemewu ma na damaa ko waaw kon na seen xel dal nee na kon na seen bi na ñu ndax xel koom daaw bi ñuy yeewee am na ñu doon waxi soxla waaye bi ma déeyee dane ma nee na bi ko sëñ Mourtala déeyee dani ko nee kenn ku ci ne kenn ku ci ne lim ñaq lim ñàkk mooy faj aajoom mooy faj aajoom kon nag nañ sant bu baax nee na kon nag nañ sant bu baax a baax sant bu baax sant bu baax di ñaan yàlla suñu borom di ñaan yàlla suñu borom mu fekk fanam mu fekk fanam dolli ko wér dolli ko wér ba li mu yéene ba li mu yéene ci lislaam ci lislaam ak ëttu ëttu Serigne Saliou bii ak ëttu Serigne Saliou bii mu mottali ko mu mottali ko ànd koog ñun ñi ñëpp ànd koog ñi ñëpp ñëpp fekke ko ñëpp fekke ko ak tal ak ak tal barke Cheikhul Khadim barke Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf jërë sant bu baax sant nan bu baax na ñëpp tàllal na ñëpp tàllal tey wax amin bismil ilaahi yan Bismillah kon ni ngeen ko gisee nii rek la ñun dañoo nekk fépp waaw fépp boo xamante ni jàpp nañ ni fii maanaam bu ñu ñëwee dinañ ko combler dañuy ñëw nekk fa ñun ñun jëwriñ ñu ngi si tool yi ñu ngi si waañ wi ñu ngi si ñu ngi si ñu ngi si logiciel bi ñu ngi fépp fu ñu gis foo xamante ni war nañ faa dugal suñu loxo rek ñun moom moom ñu nga fa di leen xamal tamit liggéey bi nga xamante ni moom lañu seq ak yéen muy liggéey sëriñ Moutala liggéey Mbour liggéey Kër Balla liggéey bi liggéey sëriñ sëriñ bi kon nag dañ koo ubbil ñëpp nga xamante ne ñoo si war a tàbbi tàbbi nag mooy suñu njëriñ kon ñu ngi soññaat suñu bopp soññaat mbokk jullit mbokk taalibe yi di ñaan yàlla sëriñ Moutala saalibu yàgg fi lool lool lool lool yàgg fi lool ndax yàkkam fi mooy suñu njariñ di di di barkeelu ci kàddu yi di ci sof tuuti rek di fàttali mbokk taalibe yi di leen xamal ni liggéey bi moom nii rek la ni ngeen ko gisee ci waañ wi nii la demee ñu ngi santaat sëriñ bi bu baax dafa yombut. te yàlla sunu borom cëral nañu ko ba am nañu ko kon kàddu yi ay kàddu yu cant rek la di bëggee mbokk taali bi yëpp di leen xamal ni nii rek la waaw liggéeyal sëriñ bi moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la di santaat sunu mbokk yi nga xamante ni ñoom ñoo indi télé bi di leen siyaar bu baax a baax di rafet rafetlu tamit seen liggéey yéen tamit di leen xamal ni nii rek la ñii dañuy nekk fee ñii nekk fa ca des ñu ñu ñu maase tase jaa ngeen jëf rek waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. alhamdulilah ñu ngi leen di siyaar yi di leen màggal waaw ñu ngi fii tey Kër la ci liggéeyu Cheikh Moutala bi ci xel ci euh, tool yi waaw ñun nag ñu ngi fii ci waañ bi waaw macha allah togg xéewal yi nga xam góor yàlla bu jugee ci tool yi mën cee xéewal waaw di sant bu baax a baax a baax di ñaanal sëñ Moutala Saali mu yàgg ci lool te ànd ak yow ci bàcc ci Touba tey taal nañ seen mbana waaw def nañ ay ceebu jën yu xonk ak ceebu jën yu weex waaw góor yàlla yi nga xamante ni ñu ngi nekk ci waar bi bu duggee suñu traçage bi ñu duggee ci tool rek ñu ngi bu baax a baax ñu euh, euh, di euh, sëñ Aliou Diakhaté Parcelles اقبل ما